ba Dubai dem ba Asie yep raafala ko ba Maghreb Arab, Tunisie Maroc dégg nga Algérie ba Mauritanie bi dugg Noir, Afrique noire ba nigeria ba Tchad ba dem ba dans aux États-Unis Occident en général fep fu julit nek rek ñoo ngi lay wax euh, ne ñoo lay di la hani an hani an hani an ci ko wéru sayyidna Muhammad waaw ah, mu nekk mu nekk lu rëy waaw ah, yàlla nañu ci yàlla muur loolu. ñëw Sénégal mi ndokkeel nitu diine yi fi nekk yëpp. ah tabaarakallaaw di ngeen dégg ndokkeel bu gën a officiel gën a barkeel. war a jóge ci ku barkeel ku baax mooy al imaam El Hadj Ahmad Bara Ndiéguène mm-hmm. su ma paree sama live bi rek di ngeen gis sëñ Maxtaar dugal ko ndax moom it ndokkeel na këru diine yëpp commencé ci njabootu Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiyallahu anhu Thierno Bachirou ak ay doomam ak kii. njabootam ak rakkam rakkam yu tedd yi ba ci njabootu euh, sunu maam euh, euh, Cheikh Saad bu sunu maam Cheikh bu Kounta dégg nga wàcc ba Thiénaba dem ba Tivaouane Medina Baye Léona Niassène ah dem ba Medina Gounass dégg nga dem ba Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha dégg nga dem ba fële ca sunu mbokk laayee ni jullitu Sénégal yëpp ak ku nekk foo mënti bokk ak noo ko bokkee ak mouvement religieux yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel ci julli yonent bi di ñaan yàlla mu barkeelal ñu xam nga daaw dañoo waxoon ne euh, sopp gëm fonk topp roy ak di liggéeyal rasulullaay dafa mel ni nag loolu ñu waxoon dafa mel ni yonent bi nangul nañu ko alhamdulilah nangul nañu ko bu wér ndax moom ñu xiir ci barkeem ak tëbbam yàlla ñuy xiir ci barke ak tëbb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñuy jël sunu alal di ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan nañ gàmm waaye yëngatu yu mel nii daanul am te fi mu nii fi ma leen di waxee nii nii nii nii mat laa yaa ngi nii te lii comme dégg ngeen sëñ Amadou Cissé li mu leen wax ce n'est que le début donc tey dañuy dem ñu xool organisation bi seet lu mu def bu subaa incha allah lu ci manqué duñu xëyee suba mottaliwaat ko ba gan yonent bi sallallahu yéen ñëpp xam ngeen fukki fan ak gurdu dafa metti te toogaay bi dafa metti ci suuf toogaay bi dafa metti ci taalibe yi te kenn bëgg te kenn bëgg te yëngatu kenn bëgg te dem léegi nag surtout sunu mbokki soxna yi ah moo tax ñu doon xalaat ne nañ leen wutal ay matelas yu nooy duñ ko defee wut suñuy moquette yu rafet ak bassin yu rafet lal ñu mën a toog deux heures de temps trois heures te duñ jël benn coono sëñ Amar wax na ko te loolu daw yaram la te dëgg la de wallaahi du ñu amoon ay lali wurus képp ku ñëw ngir yonent bi ci lalu or yooyu ci leen lay ci leen lay tekkat teg matelas yi ay dañ koy def diamant parce que yonent bi il mérite tous les honneurs parce que il a tous les honneurs sax sallallahu alayhi waaw moment bii ma leen di wax nii mbokk yaa ngi ca fële ca kër sëñ Daabaay Guèye di waaj ay reer ay barkeelu yu war a ñëw ci waa kër yonent bi ci gan yonent bi sallallahu alayhi te noonu lañ koy jàppee ba ba ba fukki fan yi jeex incha allah am na yeneen mbokk yoo xamante ni nit ñi wutee ay matelas ñoom it ñoo ngi wutee noonu ay yeneen i teraanga ngir ganu yonent bi nekk ci condition yu baax donc leen lu ci nekk bis bu nekk di ngeen gis ñu ñëw fii ñu def ko live ngeen déglu ko gis ko pour wax leen ne leen macha allah euh, mbokk yëpp a ngi taxaw maa ngi bàyyi xel tamit sunu mbokk yi Europe yi mbokk taalibe yi nekk foofu ci njiitul seen Ibrahima Diop ak ñam àndal ñoom ñëpp tamit ñoo ngay ñongi xalaat sëñ Racine li sëñ Thierno Amar ñom ñep ñongi and ak ñun ci xalaati ak gis-gis yi taman wóor na ma ni contane nañ bu baax ah, ñoo ngi ndokkeel jurit yep di beral nuyu tamit suñu papa al alxaaji Abdoul Aziz Dia ah tabarakallah mo ñëk duggal alalam ci ci yef yi tabarakallah di turondo sëñ Abdoul Aziz Marabu euh ah, yalla ko yalla fay yiw fayaale ñep ñu ci sonu ak ñu ci def ah, tabarakallah lepp yonent bi rek la sallallahu alaihi wasallam te du a ah, duñ ci wéyee tamit lépp moo koy moomaat muy gën a baax condition yi gën a baax ñoo ngi nuyu bu baax tamit tey suñu borom di nijaay ci soxna Binta di alxaaji Ousmane Touré di xalifa kër ga di magu euh, magu kër ga bokk ak soxna Anta Touré day ak baay di papa ci El Hadj Touré gën a miin ah ak ñoom ñu muy muy suñu borom di di ku baax moom it di wëllëri ci kër gi di soppi ci kër gi. tabarakallah ñëw fekk jotaay bi mu nekk lu rafet rafet ñi ñi fi teew tamit ñëpp ci njaboot gi lañ suñuy jarbaat suñu sët ñoo fi nekk suñuy rak ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo wéttali gaa yi su ko defee ñoom ñëpp waa surtout waa armée bi ñoom leen di ndokkeel bu baax ah di leen ñaanal ci njiitalu sëñ Mamadou Guèye ak euh, Hadj Ab euh, Alak Cheikh Guèye tabarakallah ak ñi ci ñi ci nekk ñëpp di ay militaire homme de tenue ba noppi di am ay xalaat ak ay gis-gis di am ay ambition ak ay projet yu baax jëm ci xadara bi euh, duñ ñëw rek ngir sécurité waaye toujours dañuy xalaat ni ñuy defee bu mu gën a baax donc li inspiration la euh, pour wax ni affaire bi léegi nekkatul rek toog di wax ne cheikh a fi mën ñun ñoo fi ñoo fi gàmm ñoo déedéet léegi affaire bi affaire de résultat la problème de résultat la problème de jëf la léegi dañoo war a bàyyi werante yi ak xëccoo yi ah soo fi soo soo gënee nit sëriñ da nga ko koy wan ci ay action léegi mënatul nekk ci ay wax wax ji léegi nit ñi vraiment war lu ñu war a feral la dañ ko war a feral du lu ñuy rey sax ndax wax du du fi jóge waaye dañ koy feral nag ndax mbay béy day weetu day weesu mbote ah ñu taxaw def yu leer suñu njaboot gi xam ni euh, nekkuñu rek dans le dans le discourisme di lii rek di wax rek déedéet mais li ñuy wax dañ koy traduir en acte ah c'est important loolu moo tax man ma bég kontaan parce que xam na ni léegi salaat faati yi baax na شيخ في من باخنا جورج كمالي باخنا واي تامي دا فا ام لو خامتيني خالا يو نداوي خامونو كو خامونو صلاه فاتيه كي تيجي موغي ني خالا بو نداولا خديجه غي ني خالا بو مي لي اما لو مي ديف سيم بل في دي وقتان تي صلاه فاتيه اك جورج كمال في بسوبا مي لونجي خام واي خامنا ني ماتلا يي يونتي بيكو لولو سا دا ام لو مي ديف سيم بير بي افير بي افير بي فوف لا loolu moo am solo yàlla nañu yàlla boole jàppale ñun ñëpp ubbi ñu bu baax maxtaar bu dee bàyyiwuma dara euh, mango comme ni ma leen ko waxee gaa yaa ngi ca ca kër euh, Hadj Dabaye ci coordination jëwriñ sëñ Baye Fall Ndiaye euh, mbokk yëpp nga fa xale yu góor yi jigéen ñaa nga fa ñu war a defar ay teraanga yóbbu ko terle ko benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dootul dakk incha allah noonu rek lay demee mango ñoo ngi ndokkeel ñëpp ndokkeel Serigne Mounirou al Khalifa Euh, yàlla may ko wér ah, daaw yaakaar naa ñëpp moon nañ ko du dëgg waaw ah, macha allah yàlla dikk na ñëw na moo ngi fekke gàmmu gi moo ngi ubbi burdu bi incha allah euh, ndokkeel tamit euh, rakkam yu tedd yëpp commencé suñu bàyyi Cheikh Ahmed Cissé suñu bàyyi Seydi Abdou Salaam suñu bàyyi Serigne Sidi suñu bàyyi Serigne Ousseynou ah ndokkeel suñu bàyyi al imam Alaaji Ahmad Baro mu yor burdu bi macha allah di ngeen ko dégg léegi ndokkeel tamit njabootu Alaaji Ahmad Baro yëpp njabootu Serigne Muniru yëpp

waaw boobu ba tey ñoo ngi jàpp xel yi ak bopp yi pour lan gars yi yëpp taxaw taalibe yi kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay sëriñ si rek nu toogoon di gàmmu mais du am xorom taalibe yi ñoo koy ñoo koy xumbal beneen mbir mi ci des tamit attention maa ngi ñaanaat ñaanu maam alaaji te ñaan googu ragal naa ni moom mooy ñaan gi ñu war a ñaan mooy lan fu nit di màggalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan cee sàkku yàlla nga ko am maam alaaji moo daan ñaan loolu xam nga kooku bokkut ak kii wax ne ku ñëwul si man doo gàmm amoo gàmm il faut yalla y yor dafa yaatu dafa bari ña nek Indonésie nak ña Asie ña nek euh, euh, Nouvelle-Calédonie ak Las Vegas ña il faut il faut avoir un esprit ouvert di réfléchir et puis di doy wax li ñuy wax ñun biñuy avant de parler il faut réfléchir il faut remuer la langue sept fois man mille fois te ñi ngay waxal ay nit c'est des gens qui réfléchissent wax dañ analyser bala ngay wax sax suñ la xoolee ni nga toogee rek xam na li bëgg wax te et puis li ngay wax dafay des ça reste xam nga bu njëkk danaan wax ne les paroles s'en vont mais l'écriture reste wax jooju waruñ koo xoolaat déedéet léegi les paroles restent parce que dañ koy enregistré waaw maam alaaji dama ne alaaji Moodu Njëgéen danaan wax ne fu nit di magalé yonent bi ci keu souf yalla yalla nangul la yalla na nga dajeeg yonent bi yonent bi yatuna saway air baa ngi nii rek yaatu na ñun ñëpp a ngi noyyi te kenn xeexul ak sa morom xulool ak sa morom yonent bi waaye waxuma la wax pepp suufu Madina rek moo ëpp doole lépp ci kaw suuf ah, ah donc il faut ñu ñu nañu nañu yaatal suñuy dënn yonent bi loolu la alam nashrah laka sadraka ah, il faut avoir une une poitrine dilatée une poitrine ouverte un cœur ouvert un esprit ouvert bañ a nekk dans dans le

dem ba fukki fan yi mat ñu noppalu suñu noppaloo euh, incha allah samedi ba di mawlid bi ñu def ko incha allahu taala yonent bi kontaan ci ñun ñu ànd ak moom baal jànn. incha allah Haj Maxtaar. macha allah alhamdulilah xanaa rek euh, pour plus de précision comme par rapport ni nga ko waxee am na ay questions yu bëri yu ñëw te ragal naa junj ko ci sa wax ji mooy lu tax ñu war a gàmmoog euh, lu mel ni njëriñu gàmm lu mel ni njëriñu salaatu faatiha yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne nii du ñàkk ñeen ñi déglu tamit ñoom bokk nañ ci ñi posé question yooyu te jotaguñoo déglu. waxtaan yi nga xam sëriñ bi def na ko ci suñu yeneen plateforme yi incha allah boo leen ci demee ngeen fa fekk sëriñ bi teweete ah, point yooyu point par point ak ay leeral yu ama am solo yoo xam ne ëpp na ah, wuute xanaa rek sëriñ bi ñu bàyyi la nga jox dig daje mbokk taalibe yi des suivre yëpp un peu partout dans le monde ci dix euh, guddik guddi yi nga xam ne nii moo des suñu kanam nga xam ne lépp rek dinañ ko mën a suivre ah, en exclusivité en temps réel incha allah maa ngi ñaan xaaj Njóogu Mbodj bu dee moo ngi en ligne wala wala xaaj Racine ñu jël lien wu waxtaan yooyu ma def ci lan mooy gàmmu

waaw dafa doon def waxtaan jamono yee ci ginnaaw matul sax at ci lay yem moom di ngat gàmmu di critiquer gàmmu naan bidaala ak yu demee noonu moom borom xam-xam léegi nag mu jël benn bis euh, ci jàkka ji muy defee waxtaan chaque jour day def ay dars ay cours léegi mu waxtaanee Seydina Moussa pendant un mois histoire Seydina Moussa xam nga histoire am dafa bëri mm-hmm. alxuraan un euh, un tiers yëpp Moussa lay wax mm-hmm. un tiers du Coran parle de Seydina Moussa mm-hmm. waaw alxuraan doo ko xaajee ñetti pàcc benn pàcc bi yëpp Moussa rek lay wax donc mu waxtaane Moussa pendant un mois chaque jour mu ñëw def ci ñoom ci cours léegi nag kenn posé ko question ne ko sëriñ bi wax ñu dara ci wàllu màggal juddu yonent bi léegi mu daal di commencé naan loolu teguñu ko fenn nag amul cëslaay ci alxuraan amul cëslaay ci sunna amul amul dalil wax wax ba àggal kenn ci taalibeem yi mu doon jàngal moo ko wax ne ko sëriñ bi mais yow pendant un mois yaa ngi toog fii di waxtaane Seydina Moussa mu ne ko yow gàmm gi ngay bañ ci yonent bi yaa ngi koy defal Moussa mm-hmm. te yonent bi Moussa ko gën mu yonent bi moo gën Moussa fopp sëriñ bi daal di wedam mënatul wax benn mot te kooku ponkal la du yor kayit science yëpp lay jàngale ci diine mais taalibe moo ko rappelé à l'ordre mu ne ko bu dee toog rek bëgg ci yonent bi waxtaane ko waxtaani histoire am nit ñi dajaloo ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko mais yow pendant un mois ñoo ngi koy def bu dee loolu bidaa la ñun ci bidaa rek la nekkoon kon suñ dee ñun safara lañ jëm ndax yow ci Moussa rek nga nekkoon di wax ñiy gàmmu tamit dañuy ñëw toog tagg yonent bi woy ko ngir ñi ñi ñi ñi ñi nga xamante ni ils sont sensibles par le cœur woy yooyu nekk seen xol ñu kontaan yonent bi bëggaale ko ndax koo bëgg topp ko Cheikh Tidiane ko wax koo bëgg topp ko bi ci des tamit mooy histoire yow ci nga dëkk pendant un mois ñu wax histoire Moussa pourquoi ñun amuñu droit jël benn goudi symbolique mu symbolique muy judd yonent bi ñu waxtane ci yonent bi borom xam-xam bi dafa wedam mënatul wax mu ko vraiment tay yay nga ma sama talibé nga mais yay nga ma ah te ñom ñoñu ko don te tere Arabie Saoudite fimné ni ne nii ñoo ngay gàmm ñoo ngay gàmm gis nga eh, gaay yi

photo bour bi en papier def papier lay de ñu def ko la bi ni ku nuyu papier bi ne ko ak yow dem papier réfléchir leen yow lolu nga nangul ko bour bañal ko je peux pas comprendre Abdul, su di di di douter magal juddu yonent bi ah attention ah, il faut se poser des questions te fo foo yaangi magal ay affaire yaangi def sa anniversaire ak sa soxna yaangi def sa anniversaire bi nga bi nga amee liggéey bi mouvement yi ñu bokk ñoom ñëpp mais dañuy def congrès congrès moy lan anniversaire bi waxtaan ci xool nak war na avancer wa wala ku defoon président ñu dindiko légui yow li nga li nga li nga nangul sa bop yëpp bañal ko Seydina mohammed loolu question nit war nga poser question war nga xalat nit da ngay il faut il faut réfléchir il faut réfléchir lan moo ci ne ñu jël bis ba mu juddoon symboliser ko même bu dee te te dinañ ko waxtaanee wax naa ko fi démb soo ñëwee ci alxuraan ma wan la ci gàmm soo ñëwee ci sunna ma wan la ci gàmm soo ñëwee ci xaqiqa ma wan la ci gàmm man demal leen sax al bu dee alxuraan la leetaru alxuraan bu nekk day gàmmu far man maa wax lool. waxuma aay yi de waxuma waxuma suurat yi de suwar yi de déedéet waxuma waxuma waxuma xisib yi waxuma sumuni waxuma rubox yi dama ne chaque lettre du Coran dara tax koo jug lu dul màggal yonent bi chaque lettre du Coran man maa wax loolu te soo ñëwee ma leeral la ko ba mu leer bu dee bu dee sunna yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wóor lëndi ñu ne ko lu tax mu nekk bis boobu ci laa judd waaw loolu kum doyul lu lay doy lëndi lu tax nga koy woor mu ne ci laa juddoon xanaa ñun ñun loolu rek war naa tax ñu màggal juddu yonent bi te ci haqiqa mais fi kan mo fi judd sax kulul yonent bi fi ku fi judd sax ku yonent bi fi yonent bi rek fi judd te juddo moy deug deug judd te juddo moy moy moy moy judd sax far sallallahu alaihi wasallam avant muy judd existence wujud ci bopam prématuré la won ci yonent bi la nekké mak nek mukallaf nek nek deug deug nit ku am ñariñ ñu mën ko yoni mën ko deflo mën ko li may wax nag loolu mënoo ko dégg waaw kooku mooy waa ji juddoom mooy dëggi dëggi juddu kooku soo màggul juddoom loolu mooy wane ni yow juddoo goo mooy wane ni yow yow t'es un mort vivant wala un vivant mort te yëgoon da ngaa dee ah xam nga ki nga xamante ni bind bind nañ ne dañ ko war a exécuter moom dee na ba noppi même bu dee day lekk di naan waaye képp koo xamante ni xamoo ne juddug yonent bi mooy dëkk-dëkk judd mooy yow sa bopp xamoo ni existé woo juddoo nekkoo parce que sa judd doo bëggee mu nekk juddu dëgg da ngay xam judd waa ji nga xamante ni juddam mooy dëgg-dëgg judd te moom dong mooy juddu sax far ñi ci des ñëpp seen judd du juddu maa la ko wax waaw lii nag yeneen affaire la te xanaa xamoo ni bisu gàmm nit yàlla yi dañ daan gis même ñi ko daanul feete ah walu yàlla yi am fatku dañ daan gis leeru yàlla yi ni muy yokkoo mel ni géej gu mer billaahi ñu gis asamaan ak suuf lëkkaloo asamaan jege suuf suuf jege ak asamaan ñu ne waa lii lan la ndekete boobu jegewuñ jegantewuñu mais leer yi leer yi moo moo rapproché asamaan ak suuf ñu calculer xool daana mais lii dix ra douze rabiul la wala mooy weeru gàmmu fukki fan ak ñaar ya ñu ne guddi gi bokkut ak benn guddi ci guddi yi parce que juddu ga yonent bi juddu woon démb heure bu juddu gi dikkaatee yàlla day multiplier waat leer yi ak xéwal yi Euh. gaay dal ni guddi gi ëpp naa nelaw moy li mag ñi dem nañ bané sax légui comme fuk ak ñaar la fuk yëpp nañ ko magal am ño xamanteni jor ni yi ma xam man wéru rabio lawul yëpp lañu magal chaque guddi duñ nelaw am xam nañ waxtu yi amna waxtu yi ñuy jóg jang sen salat fatih def sen jawrit kamal jox ko yonent bi gamu sen gamu sogo a mais ñoo ño xam li xew yow nak bu yow so mous mi nek sa kaw toa sax gisoko yow soo tëddee ay gént yu neex rek ngay gént ay soir ak ay ay gént sa sa coroog ba nga amoon bi ngay nekk xale ak yooyu ngay gént kooku mënul gis leeru guddi mënul gis leeru yonent bi ñun ñi ñi ko gis nag mais bàyyi leen ñiy gis ñu doxal seen doxal mais waa léegi sax màggal juddu yonent bi yow lu mu lay wàññi loo ciy mer lu mu lay wàññi te yow loolu ñeme woo ko wax ci fête de l'indépendance hmm. ñeme woo saaga fête de l'indépendance soko defé bour bi jël si la njabootam jël si la te fête de l'indépendance lan la màggal juddug Sénégal moy souveraineté Sénégal ñeme wo xass ñi am seen yeneen bisi doko wax ko ci ci eh, Facebook bi nel bisu sa bisu diw xewu diw na wax ci nangam soko defé ñu fekk la se ak seen wa kër yëpp wala len debbu len kon légui yonent bi ngeen hmm parce que yonent bi lañ yapp Euh, man vraiment pour man loolu débat ñun nañu ñu ñu bàyyi ñu sopp ko bëgg ko fonk ko topp ko di ko roy te di ko liggéeyal su ëllëgee bu dee ñun ci bidaa lañ nekk mais lu ñu am jël yow mi deful lii nag su ëllëgee suñu suñu yàlla di fay mais ñun dañ lay boole ci li ñu yàlla fay boole la ca yow <laughs> yow sa yow nga safara lañ jëm ñun nag su ëllëgee du ñu yonent bi fay dañ naan la kaay li nga doon wax yëpp da xamul woon mën naa am sax sa cofeel ci yonent bi moo taxoon nga doon waxee noonu kaay ñëwul ñu ànd aljanna billahi parce qu'ils comprennent pas euh, alquran doo gisee aktharuhum boo gis laa yaalamuun laa yaqiluun laa kese li ñi ci ëpp yàlla neen la plupart la majorité ils comprennent rien yonent bi nag du du du problème de majorité problème de minorité minorité sélective c'est la crème de l'existence ñooy ànd ak moom gis nga moi, def c'est les intimes du prophète Ouais, hey, eh, dama est-ce que ça anniversaire Donc nga koy Mary. C'est sa anniversaire faut koy féetee Ce burger, kër wala même dans un yóbbu restaurant table bi ña ñay toog ñan tes amis intimes <laughs> jàng yi jeexu la kon goolam xoolal màggal juddu yonent bi ay intimam ñoo koy defal ngeen ñooy intimam mooy ñiy julli ci moom suba ak ngoon guddi ak bëccëg salaat faatiha suba salaat faatiha ngoon wérdu suba wérdu ngoon fu nu di ko bëgg fu nu di ko sopp kon ñun sayyidina muhammadin al-faatihi wa ughliqa wal xaatimi lima naasiril haqqi bil haqqi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 Boro laqatu sëñ Bay sëñ Bay kaay tëjal ñu sëñ Bay waaw ah, dëgg ma ne kaay ah, ah, bismillah ñoo ko indi pour toogaay burdu bi toogaay bi gën a neex ñoom ñoo ko indi ma kay taxawal sëñ Mbaye dem yóbbaale la defal defal ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين نكون من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين jërëjëf